أعوذ بالله seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñoo desuwaat ak yéen ci waxi sëriñ Touba yi sëriñ Touba xaadalahu laahu maxtaara lahu nee na ñaar ñu ànd te wanantey ginnaaw bu ku nekk waaxoo genn wàllu wax léegi ku geesu doo sëriñ sa moroom ku la gisul gisoo ko du la sonal bi sëriñ Touba xaadalahu laahu maxtaara lahu di door ñëw gànnaar daa dajale taalibe yi ne leen tey yàlla dogal na ne ñoo ngi fii ci gànnaar maa ngi leen di digal na ngeen góorlu ci sama ndigal yi ku bañ a góor góorgóorlu ci sama ndigal ba dellu ca réew ma jigéen di la digal ngay daw di ko doxi bi muy waaj jóge gànnaar daa dajale mag ñi ne leen tey dama bëgg ngeen xam ne li ñu fi doon def mat na nañu jéem a dellu na ngeen yenu sama yére yi ak yére yu Moustapha yi ak yëre Fadulu yi te ngeen ànd ak Thierno am na dencukaay bu nekk ca Dagana Thierno xam na ko am na yëre boo xam ne bu ñu ca war a def la bu ngeen fa yeggee Thierno dina leen wax yëre ba ñu fa war a def ñu def ko ca daa dëkk bu may jaar maa ngi topp ginnaaw tàmbali di waaj ba te suba ngir barik taalibe yi sëriñ bi woo leen ne leen démb laa leen waxoon na ngeen waaj ànd ak Moustapha ak Fadilu ak Thierno te yenu sama yére yi ak yëre yu Moustapha ak yëre yu Fadilu yu ngeen di waaj ba nëgëni waaye dama leen ciy bëgg a dolli leneen Fadilu mii nga xam ne ndeyam sërif la baayam sërif la ku bëgg lu baax war a yenu ci yére yii Moustapha mi nga xam ne amintaloo ndeyam yowmal xiyaam man may taxaw di ko tagg mel ni géwélam kooku taxul kenn di wax ñu daal yére songu yëre ya ànd ak Cheikh Moustapha ak Cheikh Falilu ak maam Thierno Serigne Touba xaadalahu laahu maxtaara lahu mas naa woo ku ñuy wax Serigne Mahamadou Amine ne ko loolu ma dégg wala fi naan sàmba mënul kanamam man gannaawam mii sàmba loolu dalu ko sama njaboot gii su ma dëddoo ku leen bégal maa lay fay ku leen tooñ maay fayu Serigne Touba xaadalahu maxtaara lahu nee na ku gis sama waay bu naqari la fekk ngay dégg sama turu waajoo jee musiibam yàlla di xëpp ci sa kaw la musal daal mooy dema ba dootoo dégg te sama waay ku ko laal sama koor gi ma yor bu ma yegsee balaa ma laaj lu xew day dal ba nopp te fu mu dal mu nooy bu ma ko dóoree ba foofu nooy ma samp ko laaj nag lu xew noonee lay walloo sama waay kon mbokk yi lii leen la indiloon ci waxi ku tedd ki di Sëriñ Tuubaa xaada lahu laahu maxtaara lahu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu